asalaamaaleykum damay laaj jënd yëre tabaski dafa jar ngay romb sa jëkkër va vient ci kër gi di xuloog moom laaj xaalisu tabaski pour jënd yére jënd greffage fay ñëw dafa jar nga woddu sa jëkkër à ce point jar na ko laaj xaalisu tabaski dafa jar nga wax sa jëkkër boobu loo xam ne du nelaw dangaa ñàkk jom sa moroomi lii sa benn bés muy jigéen ñi benn instant il faut ñu am xel koo xamante ni xar lay lijjanti mënu koo am mu dëgër këj ku ne xam ne dëkk bi dafa dëgër nga bëgg ko ci tegal ay yëre ak ay bañuñu ko de dañoo mënul fii nag góor ñi laay waxal góor da ngay am fulla xam li nga mën at lu nga mënul gis nga sama boppam la gënal du bañ naa la soo ko amee defaral sa njaboot wàññiwul dara mais boo ko amul bul tegoo loo mënul yàlla tegul kenn lu mënul fi ku fi sonn yaa sonal sa bopp soo amul neel aw soo amee nga def est-ce que xam ngeen ni waxuma la yére tabaski ak dàll ak greffage de mais xar rek du farata. parce que benn instant jigéen dañuy defe ni man sama jëkkër damay jëndal xar mais yow am nga xaalis yaa ngi fay ko yow ko jigéen ki mais jëndal xar nga tabaski sa jëkkër jënd dem góor ñoo xam nag dañoo waye di xamuñu dara ci àddina ragal nañu da ngay gis ko yor ñaari jabar jënd ñaari xar yow yow nooy def yow ko góor gi yow yàpp ngay am mais tabaski woo say jabar nga jëndal am na ñu am fulla nag am fayda boo xam dañuy yor ñetti jabar sax jënd benn xar ci biir kër gi xam ni yow yaay tabaski ku mën nga tabaski da ngay gis xale jigéen yoo xam dañuy yor xaalis daaw ba ren denc ko ci compte di xaar seen jëkkër dina leen tabaski par force ak ay yére ak ay yëf gis nga nit da ngay tegee loo xamante ni oyof na góor ñi dee nañ daw nañ ba dee il faut yërëm leen benn instant ku ci mën na nga def mais ku mënul bu ko force bu ko teg ay daan di ko bëgg a rey góor nag yaa amal fula sa bopp sama ma la gën a du bañ naa la soo mënee nga def boo mënul nga ni aw dara tàmmal ko say soxna tàmmal ko sa njaboot jamono dafa metti